Música jërë jëf daleen ak jàmm ci xew-xew réew mi tey ji alxamis ñu tàmbalee ko ak ki nga xamante ni mooy Mamadou Diop ISEC jamono ji nekk si jafe-jafe ak kër nga xamante ni génne nañ ko ginnaaw bu mu amee ab gite ngaas digganteem ak soxnaam si di Aïssatou nekkoon PDG bu ISEC jamono ji nag mu nekkoon si ngir fay kër goo nga xamante ni si la nekkoon mu nekk ab kër goo xamante ne ma nga nekkoon ci Sacré Cœur daal di ko fay génnee di ko laaj lu toll ci ñaar fukki millions ak juróom yoo xamante ni da war a fay ci location ñuy leeral nag ne kër goog koy jël location ki nga xamante ni moom moo nekk soxnaam maam di madame Diop moom moo nekkoon directrice école boobu waaye nag jamono ji daal ko génne foofu nga xamante si la nekkoon ndax contrat boobu dafa commencé woon ci atum 2016 a jeex ci atum ci li nga xamante leeral nañ ko ci contrat boobu ñu wax ci leneen wax ci enregistrement audio yi nga xamante jamono ji moom mooy wër dëkk bi ci ki nga xamante moom mooy Mamour Diallo ak diggante ak ki nga xamante mooy Adji mu nekk loo xamante ni nag muy Mamour Diallo ko yoon tegee loxo ci article 359 bu code pénal daal na wax koo xamante ne da ngaa yëkkati ay kàddu jëmale ko ci kenn koo ne dafa nekk ci loxoy yoon ngir mu daal kenn koo xamante ni moom la sekkal mbir moomu am na daan yu métti yoo xamante dina jëm ci kaw kooku nga xamante ni moo ko def lu toll ci ba toll ci cinquante mille ba cinq cent mille yoo xamante ni nañ ko daal di teg ay daan loolu nag la daal di fësal moom moo dal ki nga moom mooy Mamour Diallo fekkee yóbbu nañ ko ci kanamu yoon beneen mbir boo xamante ni xew na muy orange bi nga xamante ni génn ab information ngir daal di lépp loo xamante ni ko ci nga xamante ni moom moo nekkoon directeur général bu orange money ñu wax ne dafa moom nag daal dina euh, bañ lépp loo xamante ni wax nañ ko ci information yu jëm euh, ci mbir moomu wax ne nag loolu dara taxewu ci amul benn euh, luubal boo xamante ni yëkkati nañ ko jëmle ko ci kooku nga xamante ni la ñu waxoon ne moom moo jiite woon loolu di orange finance doon nag nag mu nekk loo xamante ni fi mu nekk nii fekk ay fan dinañ génn yeneen mbir yoo xamante ni moom mooy daal di dëggal lépp loo xamante ni jëm na ci information yoo xamante ni day dem ci fi nga xamante ni mooy Orange yi ñu jeexalee ko ak ki nga xamante ni moom mooy Aminata Touré mi nga xamante ni compte Facebook am dañ koo daal di piraté moom nag daal dina génn wax ci loolu nga xamante muy wax ne ay nit ñoo xamante ñoo nekk ci ginnaaw ngir yàqal ko ñoom ñoo daal def lu mel daal dina fësal nag ne boobu compte nga xamante moom la ñuy ngir daal yàq li nga xamante ni mooy image am na dina wax ne dara baaxu ci ndax bu ñu xoolee sax ci li nga xamante ni mooy badge bi dafa am couleur bleue boo xamante ni moo ci nekk donc muy fësal ñi nga xamante ni ñoo koy topp ak ay jegeñaaleem ne lépp daanaka baaxul nekkul loo xamante ni mbiram la dañ ko daal di piraté ngir daal di yàq image am ci biir réew mi li moo nekkoon xew-xew yi nga xamante ni moom moo gën a fës ci biir réew mi tey ji alxamis ñu leen jox di daje suba ci yeneen xibaar